envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant.

sama xarit bi sama rakk sama xarit. dinaa ko wax lu baax. waaw. non li may wax am na solo. Cheikh. Bintu. montre yu baax yëpp bokk heure. mu baax loolu nag. parce que alxuraan saa yu ma ko woowee mu wuyu ma. te jigéen yu ma ko. keroog ba mu defee moso. ma def ca sama yàq mooy li may na may defal nëbb rek danoo dégg danoo moo xam dañ koo dégg waaye nag xol bee rafet moom borom borom Tambacounda yaayam ñaanal ko baayam ñaanal ko kon yàlla na sa jàmm yàgg nga ñëw nag yi <laughs> bu ma sax yóbbu waaye dinaa la wax bu baax. maa la wax dëgg sama téléphone naam miyaa. miyaa waay. ma ne ko naam miyaa. maa la wax. maa la wax loolu waaw waaw mais mais mais noonu la yow da nga baax yow baax nga yow la tey am na noonu mel bu ma la fekkee itam damay jàpp sa waaw ku baax nga de. yaa ni nga def rek de wala war nga ni bii bëgg naa la de. Eh, kii dafa baax. ndax kii moom daa neex a li ko bëgg ku bëgg lu baax ak ku doon laal yoon sant rek maa ngi waxoon ñuy waxtaan ci yow barki seen tubaab yi. waaw ak sama téléphone léegi yow ba xaw yoon bi yëpp la foo fay. nga àndoon ak yow ma di toog man bi sax dama la. waaw waaw waaw. Pare moom yaa ko manqué moom. Happy birthday. Thank you. Témoignage. moom moom daal xaw ma en fait c' est une personne spéciale. une personne vraie en fait. et ki nga xamante ne dama ko eh, ah, respecté de par bra bravouram de par eh, force. tey su may su may xool si moom man damay gën a am courage ak force pour. pour gën a avancer. Hmm. parce que c'est une femme mais une femme boo xamante ne montré na ni jigéen da nga war a gëm sa bopp danga nga war a gëm liggéey. da nga war a fonk liggéey. Hmm. et tey man loolu moo tax ma naw ko. Hmm. sincèrement mu doon ki nga xamante ne je la respecte beaucoup beaucoup eh. parce que comme may wax si moom daal def dafa. su may wax si moom de du ma mën a xuus trop mais dama koy bàyyi yàlla. ndeysaan xam yàlla sàmm ko aar ko parce que. Euh, euh, nekkam ci réew mi dafa am solo bu baax parce que jigéen yu bëri ñu ngi roy ñoom waaw mi ngi may jigéen yu bëri jox mi ngi boole mi ngi defar donc vraiment dama koy bàyyi ak yàlla rek yàlla waaye yow kenn du la bi yaa parce que yow li nga yow nii ci sa xol xool sa xol ko bu nga dagg mais xoolal parce que sëriñ Ba yow kenn gënu la ah, ndax nit di nga xam baax nit sax teg sa yow téye rek waxuma sax yàlla dama yal nañu yàlla defal ca. naa ni am na lu ñu bëgg te wax dëgg yàlla jom ji nga xamante ne moo fay yóbbale nit mi ngi ci moom. waaw xam nga artiste moom saa ñi dañoo yomb di étiqueter les yi ñuy tegal yàlla dafa dogal dafa nekkul ci moom. waaw ndax defe naa wax dëgg yàlla. bu ñu bu ñu deful sanseen it yéeg nañ sanseen waaw xaw ma nu ma ko mën a waxee di ko diga tàmm di waxee waaye ñu ngi bëgg yàgg ci milieu showbiz artiste bu ne liggéey nañ ak waaye liggéey ak moom dafa yomb dafa neex yëgul ko ko waaw déedéet loolu c'est c'est c'est très important mm-hmm. mu nekk nit ku ragal nit ku ragal ci artiste waaw li ñu naan artiste war a sóor so da def ay yëf. waaw artiste dafa def ay yëf. yaa def ay yëf. yaa def ay yëf te kooku euh, pour mu yegg fenn fi day yomb. man damay ñaan yàlla wax dëgg yàlla ñu ñu dem ba di gunge ba wémbale. am na fit bi te am na talent bi. moom moom li li ma naan ci sama ci sama yëf la bokk. waaw ah, yaa moom ci sama la bokk. sant yàlla yàlla neex a àndal. boo jàppee doo bàyyi. bilaay barke Serigne Ba. yàlla yàlla eh, kii bis jafe sa sa événement bi. bu jàppee fu déroulement ak xol bi mu ci demee. moi je peux je peux kii mën naa ko mën naa wax ci moom. waaw kii bu ñu toogee mën naa ci moom. waaw je peux dire man su ma su ma su ma su ma c'est ma moitié donc sama lépp la. jàppee na ku ne ànd naa ko mais daf la yéene. daf la yéene daf la bëgg. ci sa soit ci sa xew bi. Hmm. daf ciy dem ak yéene. daf ciy dem ak Pastef parce que yaa ko yooyu nga nekk ku baax nga xam li nga bëgg. donc yàlla nga yegg ne yàlla baax. déedéet montre yu baax yi rek a bokk. tëggal nañ ko nit ñu baax ñi rek ay am. waaw waaw tëggal nañ ko de. ñu bon ñaar rek a war nañ ko waaw nit ñu baax ñi rek a bokk. waaye yow ay am nag yow kenn da wax ci maam Ndiaye Savon bi. ndax dangay am dëgg la dëgg la a jàpp ci sama loxo. mais ma xooloo muy métti dañ ne mooy promouvoir. marqué sama baax li ngay wax rek. nga ne ci biir rek nag di daal promouvoir dafa. yaa ngi wax lu am solo. loo wax ci biir yow la. yow da ngay dañuy dañuy wax lu bari ci ñun góor ñu lay def ba ñun góor ñu lay def. yow ku mu sañoon tey ngay maam Ndiaye. di laaj. ñii. dañuy dem de gëm-gëm la rek. waaw gëm Sénégal moom kenn moomu kenn. kenn yoonu wërsëg kenn dëgg la. yàlla moom ñëpp yàlla yàllaay dimbali kenn ci nekk boo ko gëm. waaw nga am tawxiid bi rek tax. gëm-gëm rek mooy tax mooy li ñuy wax sànq Fatima gëm-gëm rek mooy tax yóbbu nit fi mu jëm. yëpp mbir boo gëmee rek dem. ci domaine boo mënti nekk nag. moom dama koy woowee chaque jour self made woman. mooy c'est une femme qui s'est fait elle-même. je peux parler d'elle. sama xarit la. je pèse mes mots. sama xarit la su ma genn wàll la su ma wax su moom du yegg mais mën naa ci wax tuuti parce que nit bu gëm boppam la mm. liggéey rek la xam mm. jaamu yàlla soo tooyee moom ma naan mi ngi wutal liggéey fan nga defoo lii mi ngi projeté mi ngi wut lu mu def mi ngi wut pax bu ne mi ngi koy jéem a def dara waaw kooku gu gëm boppam la mm. boo àndee moom da ngay gëm dara man mi noonu laa mel ma àndee nit gisuma positivité dama lay bàyyi la ñëpp di wut ci mu nekk nit ku baax nekk nit li xam naa li ma wax mu bëgg la nag am yéene ci yow événement mi yaa bi daf ciy dem ak dévouement boo xam ne ci temps bu gàtt xam ne kii yéene lay demee ku mu àndal yéene lay ànd ak yow jaga na yàlla nga yegg na yoon man naa wax ci yow suma nit nga suma xarit nga suma rakk la suma lépp la dañ may mere sax ndax jëmmam ji parce que fi ma ko teg man xam naa moom xam yàlla na ko yàlla defal jàmm moom yàlla na yokk yàlla na yokk tout le temps te ñaanu waajur la ñëpp di ñaan bu taxee egg ni et j'en sais quelque chose je pèse mes mots. non mais animateur culture daal yow de mais tey laa gëm animateur culture normalement lii mooy original ndaxte bu doon laa bett jàpp la fekkoon la ngay laaj nii ngay ñëwee mais bu la wóoree ni xale dañuy anniversaire doo ñëwee nii xam naa ne jàpp nañ la. lii histoire dafa bind te bu koy bind ah naraam la koy bind. non dama ne. lu wow koom histoire buy bindee arab la koy bindee ndax li nga def nii armal la moo tax arab la nekk mën a bindee lii dañuy wax je retiens la dizaine. la dizaine. non dafa bind. en arabe lañ koy bindee en arabe lañ koy bindee histoire dina ko bindee. Happy birthday to you, enjoy your day to ay ñax. Fatima again. kontaan non bii neexul ba neexul lii histoire dina ko bind ko loolu kaanu bu mag a mën da doo ay cat bu dee nga matériel macha allah laf cat na la xale yu toppandoo buñ ko mënul nañ la bàyyi nga doxal ci mën ak ci mënul war ñoo ànd bokk ci ASC kaanu bu mag a mën mais lii la la produit fini LV du ay caaxaan wala Yves Saint Laurent la yow bàyyi jàmm non non non non dëgg yàlla kaana la kii non man moom ñëpp la kii borom boutique bu xeer ba ca Poyol mooy jaayu xeer yi ca Poyol kaana bu mag baa ngi noonu neexul ba neexul dana gars yi bàyyi xel moytu la li nga yor télé bu jox kaana bu mag a mag a konkorong bee garaaw. noonu xare yi noonu. konkorong bee garaaw. loolu donc. barke Seck Moussa. Seck moom sax. oh. dama ni. waaw. Wally Seck. waaw. yàq Diop digal maa maa moom ba mu waayee ba mu ko waay doo mu bañ. waaye moom bi mu màggee dañu day waay. te bu wooyee gars yi nangu dañu yàlla ko def ci xol yi. Wally yaay toppat ci xol yi neex neex. barke Serigne Bamba laaj Diop digal maa yor wu la neex ngay jaar. jaaga sa yaay liggéey liggéey bi. bañ ko yële ci. Wally waaye waaye doom dimanche. daal ak mag. ce qui compte waaw